Euh, syndicat transporteur routier du Sénégal moom nag euh, doon wax ci accident bu metti metti bi Abdou bu fekkee ni mën nañoo jëliwaat Ndeye Awa Beye euh, xool ba xam mbir ma fu mu tollaat laata ñuy yëkkati bi lepp jotaay ci fatali moy kon accident bu metti bo xam si mo nga xew fële diwanu euh, fi nga xam si kon moo di euh, euh, Kaffrine foofee kon la accident bi daal di euh, amee lu gàtt gàtt fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu toll nii kilifa yee ña nga fa muy gouverneur gox ba. ak euh, ñi xam si ñoom la ca àndal ci ab délégation waaye tamit gendarmerie nga xam daanaka ba mbir ma dooree ak léegi ñoo nga fa woon sapeur pompier tamit ña ngay def seen kemtulaay kàttan ba ñu nu maanaam rawale ñu rawale leen ña ca des. ña ngay woy di leen seet ca suufu oto yaak fépp bu ñu sukkandikoo ci euh, Ndeye Awa Bey mi nga xam si kon moom la ñuy fekkiwaat Ndeye Awa waa Sëriñ Salim. ba tey ñi nga xam si ñoo di takk der yi ñu ngay wëy di dimbali ña ca lorule. effectivement Sëriñ Salim Seck léegi nii rek maa ngi jokkook ak médecin chef bu district euh, sanitaire bu Kaffrine euh, muy euh, docteur Kamfo mi may xamal nii bilan bi ba à l'instant tey nii ñu ngi ci 38 yi ñu ngi woy di wë di wër nit ñi ci suuf oto yeeg ak euh, aux environs de l'accident Sëñ Saliou maa ngi fi ak tamit euh, kenn koo xamante ni mi ngi fi dëpp ci suba euh, ma bàyyi leen ak moom rek mu wax ñu ci accident bi Sëñ Saliou. Mhm. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Mor Ndiaye la nu may wax maa ngi dëkk 6 kilo di nuyu waa RFM yëpp. waaw 6 kilos waaw daanaka diggante fi accident bi amee ak euh, dëkk bi matul téeméeri mètre waaw xam naa accident bi ni ni ko ñëpp waxee rek noonu la demee xëy na ñun bokk nañ ci ñi fi njëkk ndax euh, ci suñ kër la fekk bi telle ji amee la waa dëkk bi yëpp génn waaye Ndeye Awa balaa may wax dara waa dëkk bi dama leen di sant gërëm leen bu baax ci njiitu borom dëkk alaaj jaabi wax dëgg génn nañu ñëw balaa sàppoor di ñëw luñ man def nañ ko ay góor ak jigéen ñoo nekkoon oto bi ñoo xam ne li ma ci li daw sama yaram mooy ay jaami yàlla lañ yoo xam ne dañ doon daan seen doole parce que boo xoolee oto yi bagage yi ci nekk ak ñoom ñi ñu génne nga xam ne ñii dañ doon liggéey te yàlla tax ak seen njaboot kon maa ngi ñaan président xëy na sax samay wax du dara waaye ñii bëgg naa mu gestu leen gestu seen njaboot nday awa du ma mag de mais accident bu bu métti nii maa ko maa ngi ciy door a yem ndax li gën a métti mooy nga ñëw fekk nit ku ku ku ne ci diggante dund ak dee nga bëgg koo dimbale yooxu yi ci biir dëkk bi ngay toll di dégg yooxu yi nga ñëw tiim nit bëgg koo dimbale mënoo koo dimbale parce que oto yi biñ laalante baa yi ci ginnaaw yëpp dañoo fàq ñoom ñëpp ñu daje si ci kanam léegi nag da ngay ñëw gis leen ni ñu toogee nii mais mënoo ci mënoo ci mënoo ci mënoo ci génn non déedéet dëgg yàlla amuñu ci mbokk ñoo ngi ñaan nag ñi ci ñàkk seen bakkan ñëpp yal na yàlla jegal leen te yërëm leen xaare leen aljana ñi ci am gaañu gaañu it nag métti na am na ci ñoo xam ne yàlla rek a xam waaye nag yàlla moom mën na lu ne parce que du bind nit ci fukk ray ko ci juróom ala kulli haalin ku ci sa bakkan warul des faw nga wér ñi ci suñ seen bakkan des nag yal yàlla jéggal leen te yërëm leen ndeyaawa merci yow itam daf nga ci liggéey bu mat sëkk jigéen nga mais jigéen ju man jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou ba léegi fii nii ñuy am ay témoignage te euh, Serigne Saliou ñu mën a jàpp ci lieu bi maanaam fii cyclo fii jéey ji amee ci région bu Kaffrine nit ñaa ngi ñëw di gën a fees fii ndax rek ku dégg jéey ji rek day ñëw ndax am na ci ñoo xamante ni ba ñu leen jëlee ne ñu ngi xamal ni dañoo jekk saay rek dégg ko ci rajo bi ndax dañ ci amoon ay mbokk am na ci sax koo xamante ni moom euh, daanaka daanaka fii yëpp daal Serigne daal fii loo foo natt jëyee ji rek ak tiis wi rek romb na ko. Mhm,